bi ma juddoo ba léegi masuma gis ñu ñàkkee jom ni waa Benno Bokk Yaakaar quoi non maanaam ñàkk jom gii nii façon ñàkk jom gi ñàkk éthique ñàkk probité morale ah ñàkk vergogne ma j'ai jamais c'est du jamais vu quoi lii masuma ko gis man Sénégal waa Benno nee nañ dañuy dem conseil constitutionnel pour def recours contre la candidature de Bassirou Diomaye Faye xam nga ñoom déjà dañuy weer seen bopp sax quoi yow nee nga Sonko du bokk te tegoo ko ci yoon mënoo indi benn texte juridique bu wax ne Ousmane Sonko mënta nekk kàndidaa ngeen def forcing jaay doole génnee ko ci list électorale bi ngeen dem tribunal ñaari yoon mu gañe leen ngeen continuer di forcer quoi tegu leen ko ci yoon tegu leen ko ci dara lu dul ngeen ne ngeen a bëgg a jaay doole. amna ben wax bu dan wax ben element de langage moy raison d'état mel ni état d'al mom moo tiim quoi mais dans une république dafa am séparation de pouvoir su fekkee état de droit deug la justice bi dafa am pouvoir boppam assemblée nationale bi am pouvoir boppam exécutif bi am fi pouvoir am yam. waaye ma tey la def ak banditisme d'état li ma gën a rusloo nag ki gëna ñak jom moy maître Amadou Sall quoi. koo xam ne Macky Sall moom la njëkk a tëj ci offense au chef de l'État bi Macky Sall faloo en 2012 bi ñu commencé procès euh, Karim Wade bi en 2013 mu jiiñ Macky Sall dëmm tam ko dëmm ne Macky Sall bu dee dëmm la na lekk Karim Wade nee na tey moo dem ànd ak Macky Sall bokk ci Benno Bokk Yaakaar ba ne yoo yaay nee na day def recours contre la candidature de Bassirou Diomaye fey waa léegi candidature Bassirou Diomaye Faye lan motax ñu war ko invalider la len di laaj te mom c'est un homme de droit hein, c'est un avocat man seen recours bi lan lañ si mëna def quoi lan ban base juridique lay am quoi recours bob non lan lañ ci def Bassirou Diomaye fay prison la nek mais Lula da Silva nekkoon président Brésil biñ koy investir ni muy nek président ni encore turu ci kasso la nekk ni investir ko ci kasso ba mu gagner nek président de la république Khalifa Sall nekul fi prison ñu daf ko député Barthélemy Diaz nekkul fi prison ñu daf ko député wa légui présomption d'innocence anamu yow mi jang yoon yow Amadou Sall nit est-ce que su fekkee dañ ko djign ngeen out sen procureur Bo xamné ne du procureur de la république mais procureur u Macky Sall la di japp nit ñi di len sosal di fenal nit ñi di len tecc ci kasso yi ci ay fen out ben nedd ko mu juge d'instruction ma xam jàllo ñuy japp nit ñi di len tecc pour faire plaisir à Macky Sall su fekkee da ngeen a foog ne loolu mooy tax yéen li ngeen di toppee nit ñi nekk dëgg di ngeen xam te kuñ àtteegul kooku nan lan lañ ko mën a toppee ba na du nekk candidat ko xam ne kenn condamné ko amul benn condamnation mel ni ñu jàngul kon lii day wane ne yéen da ngeen ragal rek da ngeen ragal yéen a ngi pat pati tappet seen mbon gi seen jëf yu bon yi ngeen jëf sénégalais yi ci douze ans yi da ngeen xam ne bés bu ngeen ñàkkee nguur gi wallahi du yomb ci yéen loolu moo leen tiital amulu leen Sénégal benn njëriñ lu dul lu bon rek def lu bon rek ngeen xam xamul leen dara lu dul ci lu baax lu dul lu bon kon lii mooy wane na yéen da ngeen a ragal tàppet ngeen ñàkk ngeen jom yéen seen ragal gi nëbbu leen ko ragal ngeen Sonko ba jàpp ne Ousmane Sonko war nañ ko éliminer ngeen bañ ko jox fiche de parrainage bañ ko jox attestation de dépôt ci caisse de dépôt et de consignation ne bu demee conseil constitutionnel dañ naan ko sa pièce bi dafa manqué malgré justice wax na ngeen jox ko ngeen bañ Sénat wax ne nañ jox Ousmane Sonko fiche de parrainage seen waaja jalgati yoon tas Sénat bi dem indi ay militant wu APR def leen fa te amu ci droit loolu yëpp di wane seen tappet gi ak seen ragal gi léegi nag ragalatu leen Ousmane Sonko rek yem ci mais dem ngeen sax ba ragal koo xam ne moom mooy liet naaw Ousmane Sonko di Bassirou Diomaye fay kon xam ngeen ne Ousmane Sonko du seen morom bu bokkee duma leen su joxee ndigal benn leet naayam na nañ ko votel kooku da leen di duma su fekkoon ne yéen am ngeen confiance am ngeen yaakaar ne sénégalais yi bëgg nañ leen na yéen du ngeen moroomu gars yi comme li ngeen di wax mais lan ngeen di ragal si candidature Ousmane Sonko bay ragal sax Diomaye Faye kon kañ yéen xam ngeen ne Ousmane Sonko du seen moroom nangu leen loolu yéen a ñàkk jom non man lii masumaa gis lii fu mu nekk nii xam nga la lañ def lan lañ fas yéene ne duñ bàyyi réew mi dañuy forcer tier réew mi par force yow jité nga réew ñu jox la réew mi ñaari mandat premier mandat bi tu as été élu démocratiquement 60 et quelques pour cent deuxième bi nga def sa ay pexe xamné sénégalais le dañu le fal par erreur président par défaut nga éliminer ay nit indi parrainage def sa njuj njaj jaay doole ba jall sàcc élection yi Sénégalais, baye moussa nga bëgg a forcer troisième mandat ñu ne du fi amee nga ne léegi da ngay teg Amadou Bazoum Ba bëgg a bazoumiser le Sénégal quoi <laughs> pour teg ko force ko mu gagné par force pour yéen ngeen continuer di occuper seen ay postes di noos sénégalais di gën a pauvre ku wax ngeen jàpp tëj di toroxal nit ñi di jaay doole mais yéen li ngeen wan sénégalais ci douze ans yi yéen jàpp ngeen ne sénégalais dinañ leen di bàyyiwaat yéen ngeen ne dangeen di toog fii. yéen ñàkk ngeen jom bàyyi leen réew mi ku leen bàyyi ngeen koy bàyyi sénégalais yi bëggatuñ leen fu ngeen romb ñu sonkoriser leen même bu ngeen di inauguré seen BRT bu ñàkk xorom boobu nga xam ne pareegul sax dañu leen a sonkoriser sonkorisation bi dem na ba Côte d'Ivoire ci Coupe d'Afrique bi malgré yéen a ngi jéem a divertir xale yi di organiser ay concert rek bëgg a gëmloo sénégalais yi rawatina ak la jeunesse na ñoo war a concentré wu ci làmb ji ci football bi pour ñu fàtte Ousmane sonku def ngeen ko ba sonn jéem ngeen ba sonn xale yi na leen Ousmane Sonko la ñu bëgg waa du ngeen am jom ngir yàlla ngeen bàyyee ñu suñu réew mi réew mi ñoo leen bëgg a tul yéen ñàkk ngeen jom de billaahi fu ngeen di mujjee ak sénégalais yi ñax du fa sax parce que man ay nit yu ñàkkee jom ni waa Bennoo Bokk Yaakaar man masumaa gis façon doomi aadama yi quoi ñoo xam ne amuñ du ñu rus ah amuñ dara lu ñuy jomb ku dem bay ragal Bassirou jomay fay parce que Ousmane Sonko bu joxe ndigal su fekke ne invalidé nañ candidature Ousmane Sonko donc Ousmane Sonko muy ngi di xex ba legui pour candidature ma ah moog ay parce que candidature amul dara lu ko mën a tere jàll. Macky Sall mo ci tek bakanam wax wa conseil constitutionnel rawatina ak Badio Camara son ami nako Ousmane Sonko warul nek candidat ñëpp xam nañ ne su fekke le droit est dit Ousmane Sonko candidature comme une lettre à la poste mais comme Macky Sall emprise ci conseil constitutionnel ba a mu ngi a na Au Sénégal Il un ji des voilà lu de quoi conseil constitutionnel il a bëgg a sauver Sénégal ak bëgg def Sénégalais la majorité respecter li nga euh, la volonté populaire hein, sóoraale sen ëllëg pour ëllëg ñu am woy bu rafet dañuy valider la candidature du président Ousmane Sonko parce que sénégalais yi waruñoo bëgg nit ben doomi adam bu ñuy tuddee Macky Sall pour des règlements de compte politique des règlements de compte personnel mu ne du fi nekkee candidat xagn des millions de sénégalais ki ñu bëggoon su boobaa président bu tok sax du am légitimité té loolu amul ben sénégalais bu wara a nangu loolu rawatina ak conseil constitutionnel ëllëg du añ du reer waaye lu jërë sedd la. am na yoo xam bu leen ko Macky Sall def loowee ngir bànneexu bakkanam moom da ngeen trahir Sénégal trahison boo xamante ni haute trahison lay nekk te lu mu yàgg-yàgg même bu ngeen dee nekk ci biir bàmmeel dina leen topp ba bés penc